mais aujourd'hui avec tout ce qu'on peut reprocher à, à, à au président Diomaye qui est un, un, un président inexpérimenté mm. absolument parce qu'il n'a jamais rien dirigé mm. c'est normal que mu am yenn yenn kii mais mm. aussi très rapidement dañ ko war a euh, rectifier mm. parce que li tax ñu war ko rectifier recadrer ko encore parce que normalement il y a des gens autour de lui parce que tamit il y va même de la notoriété de notre pays parce que aujourd'hui ñun on a toujours joué les les les les les les dans cette sous-région et en Afrique et dans le monde même quand tu vois le Macky être reçu par le président Poutine mais avec des égards extraordinaires c'est parce que carrure la ak ak ak ak ak kii am la mais nga ñëw ci ay Adama Barrow je je n'ai rien contre Adama Barrow c'est c'est le président d'un pays ami et tout et tout des pays yoo xam ne Sénégal moo leen daan def sous son aile protectrice aujourd'hui tu deviens pratiquement le, le cadet, hein, quelqu'un qui reçoit des leçons de ces gens, hein, qui est rectifié par ces gens. Hein. Je, vraiment c'est un peu alarmant. tout cas ku ñu war a war a encadrer li ma bëgg a terminer mm-hmm. ci côté boobu mooy tey laa ko gis je ne sais pas si les gens ont prêté attention c'est vrai que euh, saa wax na ko sànq mooy que ni mooy li ma njëkk wax rek mooy dañuy euh, distraire nit ñi. Mm. Euh, aujourd'hui le coût de la vie mi ngi yokku mm-hmm. mi ngi yokku il faut que les Sénégalais soient mm-hmm. parce que yokku nañu impôt bi au moment où l'ancien président l'ancien régime bi ñu fiy toog un mois après mu mu waat wàññi na impôt sur le revenu ba nga xam ni dafay impacte ci mm-hmm. pouvoir d'achat wu sénégalais yi ak salariés yi n'est-ce pas wëlbatiku na encore wàññi dund gi ñëpp teg ci seen bët parce que le 20 je me rappelle le 20 janvier wala ñu demee noonu. le 18 le 18 la ñu la yooyu intervenir woon même si c'est à coup de subvention et cetera et cetera. mais tey gis nañ ni non seulement wàññi nañu euh, yokk nañu euh, impôts yi mais électricité bi tey ci suba on apprend que effectivement am na lu nga xam ni soppiku na ci. loo daan jëndee 10 000 tey njëgu 8 000 ngay am wala 7 500. tout à fait léegi il faut que nit ñi conscient ci loolu. Mm. te loolu yëpp day mettil dund gi parce que tamit ñoom aussi dañu war a xam ni réew kenn mënu ko développer ci juuti. réew kenn mënu ko développer ci juuti te ñoom xam nga su ma nee juuti dama bëgg wax wolof inspecteur de impôts yi man dama jàpp ni ay juuti lañu rek à un niveau supérieur c'est des gens yi nga xam ni dañuy récupérer xaalis ci nit ñi doo bëgg développer nit ñi nit ñi ñoom ci seen bopp di di di nga leen di señe pour pouvoir avoir de l'argent